invité yi euh, ngir waxtaane seen ay euh, euh, programme dañuy njëkk a waxtaane nag maître Abdoulaye Wade xam ngeen ni ñu ngi mars wax naa ko sànq 19 mars dañuy célébrer alternance ci ay loxoom la jaaroon rappelez-vous maître Abdoulaye Wade suñu maam la cest dire que nga nekk opposition au pouvoir euh, euh, il fait partie des hommes qui ont marqué pays euh, njabootam nag parce que waxuma sax waa parte mais njabootam jóg ngir sargal ko may recevoir sama jigéen seexu honorable député Marisaw Ndiaye ñoom ñaara tolloo <laughs> parce que Marisaw ni la toll député sax waruma koo tooñ mais bon mooy yaayu Abdoulaye Souka ñu ngi lay gërëm kontaan ci sa teewaay nga bokk ci cellule de communication 19 mars ànd ak Karim Wade njukkal président Abdoulaye Abdoulaye Wade 19 mars ngeen koy amal euh, mu nar a tombé ak 20e anniversaire bu euh, alternance te permanence bu parti démocratique bu Sénégal euh, ndax mun nañu ñëwaat ci solo solo solo bis bi suka asalaamaaleykum Pape Cheikh maa ngi leen di nuyu yéen chroniqueur yëpp di leen remercier si bi ngeen ñu joxee occasion pour ñu ñëw wax sur la date du 19 mars. c'est normal. am na solo parce que euh, d'abord euh, mooy coïncider ak vingtième anniversaire u alternance. Mm -hmm. euh, maître Abdoulaye Wade suñuy wax Abdoulaye Wade ci trois euh, facettes dañuy wax ne Abdoulaye Wade mérito nañu delloo ko njukkal. Mhm. Abdoulaye Wade. Euh, opposant mhm. Abdoulaye Wade président mhm. Abdoulaye Wade après euh, bi mu perte le pouvoir mhm. Abdoulaye Wade euh, vingt six ans d'opposition mu jël addunaam yëpp mu tayle ko ak Sénégal pour les droits individuels ak ay avancement majeur ci démocratie par exemple je prends exemple bu def ci constitution bi bu ñu xoolee référé wu si article 8 ba article 10. Mhm. loolu mun nañ ni yàlla ak Abdoulaye Wade. Mhm. Abdoulaye Wade nag nekk patrimoine mondial. àdduna mhm. euh, bi yëpp ñoo ko moom du Sénégal rek moo ko moom. Abdoulaye Wade bu ñuy wax ci démocratie dañ naan c'est le père de la démocratie sénégalaise. en Afrique aussi pays africain yu bëri ñu ngi am euh, démocratie euh, bu forte grâce à Abdoulaye Wade. donc bu mu nekkee au pouvoir aussi jigéen ñi bu ñuy wax. mu cëral jigéen ñi mhm. je prends l'exemple de la parité mhm. su ñuy wax aussi si ay réalisation ñu jël ay plan REVA ñu jël par exemple lu mel ni ASER par exemple euh, l'éducation euh, les les infrastructures ñu xool li nga xamante ni Abdoulaye Wade da ko fi bàyyee tey si le Sénégal a changé de visage. Mhm. c' est grâce au président Abdoulaye Wade. Mhm. te kooku nag Abdoulaye Wade àdduna bi yëpp la ko defal tout si euh, sénégalais defal nag ko ndax tey jóge na fi mais tey bu ñu jaar si euh, autoroute à péage bi tey sa xol day sedd foo daan def deux heures de temps trois heures de temps. tey bu may dem sama euh, fief Thiès moins de quarante cinq minutes je suis à mhm. loolu nag yàlla ak Abdoulaye Wade la. ak tant d' exemples yoo xamante ne suñ ciy xool rek. ci lu Abdoulaye Wade defal Sénégal dañ ko war a delloo njukkal. Mhm. delloo njukkal nag ay digne héritiers waa parti démocratique sénégalais les sénégalais euh, yi nekk fii sur l'étendue du pays mais les sénégalais yu nekk ci diaspora bi. Mhm. y a même des sympathisants yoo xamante ni duñu sax ay sénégalais. Mhm. ay étrangers la yu ñu nga xam dañuy jóge seeni dëkk dagg ay billets avion ñëw fekk ci Ablaye Wade pour mu xelal leen ci wàllu koom-koom nan la ñuy amee alal. Mhm. donc ñooñu tey dañu gis ni Abdoulaye Wade hommage bii tey ñu bëgg a jox Abdoulaye Wade jox euh, delloo ko njukkal. Mhm. ñoom dañ ciy ànd ak ñun. Mhm. nag njukkal boobu noonu Pape Cheikh euh, ñëpp war na ku ne. tout Sénégalais que ce soit la mouvance présidentielle. wax na leen parce que ñooñu ay doomu Abdoulaye Wade lañ ndax moo leen jàngal. bu dee ñun waa parti démocratique sénégalais. tey ku dem ba nga xamante ne amoo complexe autorité nu mu gën a magee mhm. yàlla ak Abdoulaye Wade parce que courage bi mu amoon les chefs d'État africains mu décomplexé leen woon devant leur père. Mhm. président yi nekkoon euh, Occident euh, ay européens. Mhm. Euh, par exemple ainsi de suite. fital africain yi ba du la mhm. loolu aussi ñoom ci seen bopp tamit duñ ko mus a fàtte dañuy delloo njukkal Abdoulaye Wade. macha allah voilà donc rendez-vous bi le 19 mars la. incha allah fi nga xamante ni mooy permanence nationale bu PDS. ban heure la nit ñi war a ñëw. bon ñu ngi woo ñi à partir de suba. ci suba ci suba incha allah mm-hmm. et dañ ci yendu jour boobu. am na benn programme boo xam ne toute la journée lay jël. très bien incha allah macha allah nag invité nañ leen. tout cas ñun la partie. amul euh, benn problème parce que moom sunu sunu sunu maam la et puis ñu fonk ko lool. <laughs> yal yàlla guddal fanam. amiin amiin ni ko Coro Sarr ak Maane Coro Sarr ak Bafu Coro Sarr. moom euh, buur la. Euh, te da koo wone euh, waaye kenn dootul fàtte taxawaayam fii ci euh, Sénégal à chaque fois qu'on le voit on est tellement content donc yéen li ma wax sànq rek seen ngor ci moom moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu neex ba nga xamee ni mënuñu woon ñàkk recevoir leen ci plateau bi ban message ngay joxe pour sénégalais yëpp parce que du yëfi PDS kese maître Abdoulaye Wade defe naa yëfi àddina la. bon damay lancer message tous sénégalais. bu gis boppam si njukkal bi ñuy euh, njukkal président Abdoulaye Wade mhm. ànd si ak suñu président Abdoul Karim Meïssa Wade mhm. le 19 mars ñu ngi lay invité si euh, permanence Omar Lamine Badji mhm. nga euh, ñu ñëw mais aussi nos frères et sœurs militants et militantes du parti démocratique sénégalais. yi nekk ci diaspora bi di ci dugal seen loxo boobu ba tey. ñenn ñi sax ñu ngi réserver seen i billets d'avion ñi ci des ñoo ngi yónnee li nga xamante ne mooy seen participation ci bés bi mhm. ñu ngi leen di woo mais aussi les sympathisants euh, yi nga xamante ne ay étrangers lañu aussi ñu ngi leen di woo mhm. jour boobaa ku nekk am na fa place mhm. euh, l'opposition comme ñi nga xamante ne ñoo nekk au pouvoir te ñu gis seen bopp ci bés bi invité nañ leen. na ñëpp ñëw daal bés bi daal bésu àdduna bi yëpp. parce que Ablaye Wade àdduna bi yëpp <laughs> ko moom. invité naa leen yéen tam. <laughs> waa voilà bu doon suñu sago dinañ toogaat ba ci kanam mais comme heure bee demee nii ñu ngi lay gërëm en tout cas Souka Seck bu PDS euh, membre cellule de communication 19 mars ànd ak Karim Wade njukkal président Abdoulaye Wade le mars lay doon euh, donc ñu ngi ndokkeel euh, sunu xarit yooyu la nga xam ne ñoo ànd bopp ba tey ak maître Abdoulaye Wade sama jigéen Nafissatou Diallo je pense à honorable député. Euh, Marie Sow Ndiaye Adjatou Ressar Koulim Dioum en tout cas ñoom ñëpp dinañu fa tase le 19 nous aussi on sera la partie euh,